aca zoom gay kalmunor kalmunor kalmunor ehe e kalmunor na fogono professeur waji me jalul boy bi daan na ko boy bi daan na kalmunor boy bi daan na kalmunor boy bi daan na kalmunor boy bi daan na kalmunor num demee noonu boy bi daan na kalmunor mu ngay dof ndeysaan mu ngay bëgg a dof bi daan na kalmunor boy bi daan na kalmunor